salaamaaleykum waa àdduna képp koo xam ne rek yaa ngi taamu di seetaan lii di seen émission yeewu leen ñu ngi lay nuyu eh, ci sa tur ak sa sant fépp foo mën a nekk ñu ngi kontaan ci ànd bi ñuy àndandoo suba teel bu nekk bu 6 h jotee ci télévision Futur Média eh, di leen wax nag ni dama am ñoo xam ne damay ànd ak ñoom eh, ngir ñu fas yéene leen rek daal di jéem a fexe bonne humeur bi nga xam ne ànd nañoo moom ñu jéem leen ko transmettre à travers li nga xam ne moo di TFM ci seen émission yeewu leen ci kaw loolu nag la ñuy nuyoo ki nga xam ne nag mooy Khady Ndiaye Bijou nga xam ne dellu si waat na ci plateau bi Xadi nuyu naa la. képp su fay naa la dellu si naa leb naa congé yi parce que dama leen nam woon nam waa équipe technique bi nam tamit ñi nga xamante ñoo ngi Facebook chaque jour di ma envoyé message di laaj kañ laay ñëw kañ laay ñëw naa parce que boo leen ma namee tamit maa leen xaw même si da ngeen foog ne du ma ni ñu leen gis nga namm leen mu am relation bu am seen diggante te lépp ci yeewu leen la te loolu ñun ñëpp dañ ci bi nga xam ne ñëwaat nga ko Euh, nuyu tamit Marie Christine di ko bàyyi nag euh, ak tagal bi mu nuyoon teg téléspectateurs yi. damaa damaa xaw a féetee tuuti rek ci sama mbokk pël yi. waaw <laughs> képp sa fay naa la daal di nuyu Bijou daal di nuyu Cheikh Tidiane Diaw mi nekk sama wet ra dara xëy damay laaj Bijou la nga ñu indaaleel yow. lu dafa demoon ba mu ñëwee daa indaale yu bëri yow la nga indaale. li <laughs> ma ma wax ko. wax ko léegi Marie Christine <laughs> ma nga lekk ko te xëdd paase. jaajëfal naa la di jaajëfal bu baax tamit téléspectateurs yi euh, ñi nga xam ne dañoo yeewu yàq seen i nelaw fu waay mën a nekk yéen ñi safoo at saxoo télévision Futur Média fekk naa leen fa ne jàpp sama loxo te naa leen dal leen ak jàmm ci seen biir émission yeewu leen dal ak jàmm ci kaw loolu la ñuy dalaleeg jàmm duñ ko dalal sax ndax moom moo war a dalal tamit téléspectateurs yi ci wàllu xibaar mooy Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane nuyu naa la naka suba si euh, fay naa la keps di nuyu Bijou ak euh, Marie Christine den wax ni rek ñetti fan yi guddoon na lool <laughs> <laughs> commencé dina yow. non Cheikh Tidiane man yow laay wër comme dix jours comme dix jours kay mais daal yàkkamti woon nañ. mais tey moom da ngaa kontaan moom ndax mooy ubbite gi mooy jour bi nga xam ne moom nga gën a bëgg ndax ci ngay ñëwee ci plateau bi. voilà ok. bokkul ak mercredi bi compris <laughs> en plus apparemment il a passé un bon week-end ah oui ça c'est vrai. Mm. <laughs> c'est normal <laughs> c'est normal Cheikh yow it nuyu nañu la di kontaan ci sa ñëw di wax nag ne léegi euh, li ñuy njëkk a def rek mooy euh, les infos en français wante laataa loolu damay ñëw nag ci li nga xam ne moom lañ leen indil tey ci seen émission yeewu leen euh, dinañ ànd ak oustaz Pape mu ñëw ci li nga xam ne mooy ngëneelu koor tey jii nag mi ngi waxtaane li nga xam ne moom mooy xëdd ndax xëdd nekk na loo xam ne lu am solo la bu yembulee foog naa ne koor gi day métti lool Fati dem na ci ki nga xamante ne mi ngi tudd Ndey Bas spécialiste la muy jabar ci ki nga xam ne blessé de guerre la euh, benn vendeuse de légumes la mun ci biir tranche de vie muy jéem a jéngu nag di essayer à subvenir à besoin wu li nga xam ne moom mooy moom ak ay doomam euh, ki nga xam ne mooy Marie Christine dem na également ci euh, moom petit plat am loo xam ne Ali Baba defal nañu ko ci seen émission yeewu leen loolu yëpp wante laataa loolu nag dañuy jàll ci les infos en français avec Cheikh Tidiane Diawo. Kepsi Thiam Dakar qui renoue les inondations avec seulement 18 mm de pluie euh, durant ce week-end. Grand Yoff euh, qui patauge, les la cohabitation avec de pluie. Elle dénonce l'absence de canalisation, c'est ce que nous euh, Nous sommes à Grand-Yoff. Ici, les lendemains de pluie sont toujours un casse-tête pour les populations. Les canalisations défectueuses sont la cause de la stagnation des eaux dans les maisons, mais aussi dans les ruelles. Ça se présente comme un grand problème, puisque nous qui, qui sommes de Grand-Yoff, nous vivons ça comme un problème sérieux. Chaque hivernage, il y a l'inondation. Et on n'arrive toujours pas à trouver une solution donc pour cette inondation. Et pourtant, la mairie est à côté. Il y a des agents de la mairie qui travaillent ici. Même leur maison inonde. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Le problème est devenu récurrent à Grand Yoff. Les eaux provenant d'autres quartiers ont fini d'envahir les ruelles de la localité. Pour se protéger des inondations, les habitants dressent des barrages et des escaliers devant euh, les maisons. Cette eau que vous voyez ici là, c'est pas l'eau euh, qui vient de Grand Yoff. Mais cette eau vient du côté des Sacré-Cœur, Liberté 6 euh, et euh, comment, Liberté cinq Et donc, cette eau descend ici à Grand Yoff et chaque année, on a ce problème. On n'arrive pas à trouver une solution. Quand il pleut, nous sommes très fatigués. Si les garçons ne sont pas à la maison, Nous ne savons pas quoi faire. Comme la pluie d'hier, l'eau est arrivée jusqu'à cette hauteur, alors que nous pensions augmenter la hauteur du mur qui est déjà très élevée. À la fin, par où allons-nous passer Mais si on ne le fait pas aussi, nous risquons euh, une inondation. Regardez comment les maisons sont basses. Heureusement qu'il existe un canal d'évacuation qui atténue le problème. mais il faudra plus qu'un canal pour que Grand Yoff se débarrasse définitivement de ses eaux. Lisa Prera, merci. Euh, nous parlons à présent du poisson qui se fait de plus en plus rare ces derniers temps au quai de pêche de Yarar. C'est la sardinelle qui ravit la vedette. Les gros poissons sont improbables. Euh, certains piroguiers accusent les bateaux de pêche d'être responsables de cette situation. Euh, Birama Saonera et euh, Abdou Depuis quelques temps, les pêcheurs ne trouvent plus leur activité fructueuse. Ce dimanche, au quai de Yarach, la pêche n'a pas été bonne. Il y a moins de poissons en ce moment à cause des bateaux pêcheurs. Là où on devait jeter nos filets, ce sont les bateaux qui pêchent. Nous sommes en période d'hivernage. Les vents forts et les plus sont aussi la cause de cette rareté du poisson. À cause de cette rareté, les marieurs se contentent des petites espèces de poissons pour satisfaire la clientèle locale, mais aussi pour l'exportation. Ah, en ce moment, il n'y a que des sardinelles et autres petites espèces. On a de moins en moins de gros poissons. Il faut aller en Guinée-Bissau, à Conakry ou au Cap Skiring. Il a que la sardinelle partout. C'est a que la sardinelle qu'on trouve. Cette situation est due, selon les pêcheurs, à des difficultés liées au carburant. Ainsi, ils interpellent l'État. Ah, il faut que le gouvernement nous aide. D'abord, il faut qu'il diminue le prix de l'essence et exonore la basse classe des taxes pour qu'on soit plus productif. En attendant l'amélioration de la situation, le bon poisson devient un luxe que beaucoup de familles sénégalaises ne peuvent plus se procurer à leur convenance. C'était le reportage Birama Saunera et Diatou Diagne. Puis notre reportage Ramadan qui s'intéresse aux transporteurs, ces chauffeurs, comme on les appelle. Euh, jeunes, donc euh, ils de ce devoir euh, religieux tant bien que mal, euh, malgré de nombreuses contraintes donc, qui rendent ce jeûne beaucoup plus difficile. Donc c'est ce que nous dit Fatou Bintou Conté. La conduite n'est pas une activité facile et quand arrive le mois de Ramadan, c'est encore plus épuisant. Mais à l'impossible, estiment les chauffeurs, nul n'est tenu. C'est difficile de conduire durant le mois de Ramadan. Tout le monde sait que conduire et jeûner, c'est dur. Mais nous sommes des musulmans. Nous sommes obligés de jeûner. Nous sommes obligés de travailler. Et il faut jeûner aussi. C'est dur, mais on n'y peut rien. En plus de la conduite, il leur arrive de vouloir gérer les humeurs des clients. Nous rencontrons toutes sortes de tracasseries avec les clients. Même ce ventilo peut faire l'objet d'une polémique de la part des clients, alors que c'est pour le chauffeur. Parfois, les clients haussent le ton pour un rien, même pour faire de la place à un autre client. C'est toujours des disputes durant ce mois. Souvent, c'est le receveur qui est obligé de jouer la médiation, surtout à l'approche de la rupture du jeune. Le jeune épuise les énergies. Ainsi, certains chauffeurs n'hésitent pas à s'octroyer des moments de repos. Je conduis jusqu'à heures, puis je m'arrête pour céder le véhicule à quelqu'un d'autre. Au-delà de 70 km, le musulman n'est pas obligé de jeûner. Pourtant, les chauffeurs qui assurent la desserte à l'intérieur du pays essaient de s'adapter. J'assure la desserte Dakar-Ziguinchor et je Au moment de la rupture, je m'arrête. On ne peut pas ne pas jeûner alors que les clients le font. Je jeûne malgré les longues distances. C'est un métier que d'être chauffeur. Si on se prévaut de son statut pour ne pas gêner, on peut avoir des comptes à rendre à Dieu. Conduire demande de l'énergie et durant le mois de Ramadan, la force n'est pas au rendez-vous. Pourtant, les chauffeurs respectent les recommandations de ce mois béni.